maire de Malika Wahnako, naa ko Talla Gadiaga di le maire de Kermassa. Massar Moustapha le maire de Yeumbeul l'ensemble des maires des collectivités le maire de Pikine et de Kézéway, ah Talla li nga wax dégg naa ko maa ngi nuyu di fi toogal xalif de Layène suñu Seydina Issa Laye di nuyu mboolem di fi teew comme responsable su ma limee danaa jóg mais yéen ñëpp gis naa leen en venant ici à Mbabas programme bii nag ñu leen indil programme la boo xam ne dana leen fajal jafe-jafe yi fi nekkoon depuis juróom fukki at ak ñett muy mbalit mi nekkoon ci mbëbës di saxaar bu dégg bëccëg di indi jafe-jafe wér-gu-yaram di indi feebar loolu la ñu ñëw pour saafara indi système bu bees boo xam ni mbalit mi daañu ko defar togg ko trier ko ba nga xam ne bërëb bii balaa ñu fi pare dana nekk bërëb bu neex dund loolu lu am solo la yéen ñi nga xam ne yéen a nekk mbëbës di liggéey dama leen di sant d'abord ndax wane ngeen ne ay góor ngeen da ngeen daan seen doole ci condition yu metti jërë jëf nit day daan dooleem daan doole boobu nag damay dalal seen xel ci ne dinañ leen wutal ay yitte condition yu ëpp ak yu gën yi ngeen nekkee woon danañ leen projet bi defal leen reconversion wutal liggéey yu mucc ayib yoo xam ne dana ànd ak wér-gu-yaram dana ànd ak euh, vraiment ngëneel su loolu weesoo li ngeen wax ci suuf si dégg naa wax naa ministre de l'urbanisme

te bu ñu fi yàlla bàyyee dinañ koo mottali maa ngi leen di sant sama xol sedd na kontaan naa ci responsable bi kontaan naa ci population bi jërë ngeen jëf jërëjëf wasalaam